الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نيوغي أم بكتي نواتي دارجي ngir taxawé درس بيغا خمنه دفا حول الموضوع mubtilaatu sawm wa makruhaatu di wax ne ki ko waroon a taxawee muy al ustaaz Serigne Samb dafa am ngant dafa joxe ngantam eh, mu daal di ñuy mujj dal la waykat ba waxoon ne sa'alani iyaahu man la buddali min imtithaali su'lihi al فقلت مع عجزي وإشفاقي muctamidan ala alqadiri albaaqi waaw bi ñu demee daal ba nga xam ne nii maanaam tële nañu gisuñu kenn koo xam ne nii war na ko mën a taxawe ah ànd ak suñu tële suñu maanaam ñàkk xam-xam ñu jéem rek xëy na borom bi subhaanahu wa taala dinañu jàppale ginnaaw loolu it dinañu jéggalu ci beneen côté ndax waxtaan bi moo waroon topp ci waxtaanu al cheikh ibrahim seen bi nga xam ne ni moo doon waxtaan ci sunanu sawmu démb waaye ngir maanaam waxtu bu xat ba cheikh alpha moom it ñaanoon heure woowu nga xam ne ni moom la waxtaan bi waroon a nekk ndog ci loolu ci lañu ko joxee li nga xam ne nii mooy heure boobu nga xam ne waxtaan bi ci la waroon a nekk ñu tëjil waxtaan bi ba tey loola it ñu ngi leen ci jégalu ndax affaire yi dañ ko waroon dafa waroon nekk bi tartib waaye alhamdulillah kon bu ko defee aleykum salaam kon daal bu ko defee incha allah tabaraka wa ñu ngi ñëw ak yéen pour dugg ak yéen ci mawdu boobu kon bu waxee مبطلات الصوم wa makruhatuh kon <clears throat> ni ñu bëgg a tëralee waxtaan bi mooy dañuy ñëw ci mubtilaatu sawm xaaj ko ñaari xaaj benn bi ñu tuddee ko maa yubtilu siyaam wa yujibu alqada li nga xam ne ni day yàq koor te waral li nga xam ne nii mooy ak fay maanaam bu bu la dalee lii maanaam defaraat koor googu yàqu woon mooy nga fay ko baneen bi ñu tuddee ko maa yubtilu sawm wa yujibu alqada walkafaara li nga xam ne nii bula dale sa koor day yàqu waaye du doy rek nga fay li nga xam ne nii mooy koor gi waaye danga ci boole kafaara ginnaaw loolu ñu ñëw ci makruhaatu soow tudd yi nga xam ne nii maanaam yenn ci yi nga xam ne dañ koo sip ci li nga xam ne nii mooy ci koor kon noonu lañ bëgg a tëralee li nga xam ne mooy waxtaan bi daanaka mu jëm ci eh, ñetti point wala ñaari point ci cadre général kon point bu njëkk bi nga xam ne moo jëm ci mubtilaatu sawm te ñu séddale ko ci ñaari xaaj ma yubtilu sawm wa yujibu alqada li nga xam ne nii day yàq li nga xam ne mooy koor te di waral ak fay ba ca njëkk mooy al aklu wa shurba amdan lekk ak naan te tey ko lekk ak naan te tey ko loola kon da ci ciy ni ki nga xam ne dafa lekk te teyu ko kooka koram wér na te du fay li nga xam ne mooy bis boobu loola dalil bi mooy xadisu abi hurayra radiallahu anhu bi nga xamee ni muy wax من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه رواه الجماعة فو أبو هريرة دفوحنا يننتب صلى الله عليه وآله وسلم نينا كيف كو خمني دفا فاتي كي ويرو كور fekk ne manam booba muy woor mu lekk wala mu naan nee na na continuer kooram te na xam ni borom bi subhaanahu wa taala mooy ki ko leel mooy ki ko nandal kon xadis boobu moom la fuqaha yi di tegtaloo ba ne képp koo xam ne lu mel noonu dal na ko moom eh, day continuer kooram te du fay ginnaaw weeru koor bi wala ñenn ci fuqaha yi ñaareel bi mooy alqay u amdan alqay u amdan wala bala ñoo jàll foofu ca al aklu aw shurbu amdan ndax maanaam lekk li tax maanaam ñu ne maanaam day yàq koor mooy loo xam ne ni day jaar ci gémmiñ dem ci li nga xam ne mooy jaww bi muy ca biir ba waaye tamit lépp loo xam ne ni mm-hmm. jege na lu mel noonu comme lu demee ni ki euh, perfusion nga xam ne day remplacer mm-hmm. lekk comme yenn mbir yoo xam ne da koy jëfandikoo mu mën a dugg sa biir àgg ba ci maanaam sa sa sa biir di remplacer li nga xam ne ni moom mooy lekk loola des koy jàppee comme maanaam taxawaayu al aklu wa shorb kon daal même bu fekkoon ni nit ki ndox mi dafa jaar ci E, bakkembi ba agg caɓir walla mu jaar ci noppi ba agg caɓiram bu booba loola day nekk loo xam ne day tokkoor ndax day dugg ci bunt bi kon bunt bi mën naa yaatu loolu waaye e, kon bu ko defee noonu dañ koy déggee baneen mooy alqay amdan muy ñaareel tomb alqay amdan mooy nit ki mu wàccoo te tey ko ki nga xam ne nag moom maanaam tey maanaam tayul li nga xam ne mooy wàccu gi nee na kooku moom du fay kooku maanaam du fay xadis boobu abu hurayra mooy ki nga xam ne ni moo ko nettali yàlla na ko yàlla gërëm mu ne yonent bi mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nee na képp koo xam ne nii man zaraahu l qay fa laysa alayhi qada képp koo xam ne nii daf maanaam daf koo dikkal li nga xam ne nii mooy waccu nee na kooku amul maanaam kooku jarul mooy fay wa man istaqaa wa man istaqaa amdan falyaqdi ki nga xam ne ni dafa wàccu wàccu lu ba wàccu kooka e, moom day daal di day fay day fay xadis boobu ahmad ko solo abu dawud ak tirmizi ibnu maja ibnu xibban ak daarul qutni ak xaakim ba pare xaakim wéral ko e, te jumhurul ulama it ci loolu lañu maanaam loolu lañu wax gisin boobu lañu am képp koo xam ne nii moom moo def li nga xam ne nii moo ko wàcculoo soit mu jël baaraamam dugal ci gémmiñam e, ak xeet yooyu nga xam ne mën naa wàcculoo doomu aadama ba mu mucc wàcc mujj wàccu loola day dog li nga xam ne nii mooy ko ñetteelu tomb bi ci yi nga xam ne nii day yàq koor te ni ko nit ki di defaraate mooy fay li nga xam ne mooy bis boobu ñetteel bi mooy alxaydu wa nifaas mooy deretu mbërëg ak deretu jongal deretu mbërëg mooy règle bi nga xam ne nii day dal jigéen ñi chaque mois ci weer bu nekk deretu nifaas jongal mooy Euh, deret boo xam ne euh, day euh, wala boog deretu wasin mooy naan jorngal saamixuun yi jégal leen ma deretu wasin mooy deret boo xam ne maanaam bu jigéen bi amee doom deret boobu di génn ci moom mu ne wala walaw fi laxzati al axira qabla gurub shams même bu fekkoon ni maanaam jigéen bi dafa wooroon ba nga xam ne desul lu dul ay quelque maanaam minute lu tuuti ci ay simili euh, ab ngant ngant dikkal ko muy deret waw muy règle walla deret wasin bu boobaa ulama yi wala boog ñenn ci ulama yi wala sax ajma al ulama lay wax ulama yi dëppoo nañu ci ne kooka kooram maanaam daf koy fay day fay li nga xam ne nii mooy kooram kooram yàqu na te daf koy fay ginnaaw ramadan ñeenteel bi mbokk yi mooy inzaalul mani fi xayril jima waaw mooy wàccuk li nga xam ne mooy mani yu maniyu maanaam génnuk maniyu génnuk maniyu ci loo xam ne nii maanaam defuloo ko ci maanaam defoo maanaam euh, sëy ak jigéen sëyoo ak jigéen waaye mani génn na ci yow waaw nu mu génnee moo xam danga doon fóonante ak sa soxna ba loola génn ci yow moo xam da doon fo ak sa soxna ba loola génn ci yow moo xam danga nga koo laal maanaam laal ak sa loxo ah, laal ay lenn ci parti ci yaramam ba loola génn ci yow wala nga def li nga xam ne jëfandikoo li nga xam ne moom la ñuy al istimna al istimna nga xam ne da ngay foye sa sàqara ba walla foye sa eh, pëy ba dara génn ci yow wala yu demee noonu lépp loo xam ne yow yaa ko def daal ba mani yu génn ci yow te fekk du jimaa muy fekk du sëy ak sa soxna ah, bu ñu nee sëy mooy jël sa awra dugal ko ca awra maanaam eh, soxna si kon bu dul loolu mbokk yi loola it day waral li nga xam ne mooy yàqu koor te day waral après ngam fay ko bu dee nag li nga xam ne al ixtilaam muy nit ki dafa gént nee na loolu moom yàqul koor danga gént ba gis ma ni yu mu génn ceew bu boobaa loolo moom du loo xam ne nii dafay yàq li nga xam ne nii mooy koor kon daal yooyu mooy yi nga xam ne nii moom lañu tënkoon ci tomb mu njëkk bi muy maa yubtilu sawm wa yujibul qada li nga xam ne nii day yàq njàpp astafar la li nga xam ne nii day yàq koor te maanaam li koy defar mooy ginnaaw weeru koor nga daal di koy fay maanaam fay bis ba nga xam ne nii sa koor googa dafa yàqu muy ñu tënkoon ko ci ñeenti li nga xam ne mooy ñett ñeenti toom kon ñu ñëw ci beneen bunt bi beneen bi mooy maa yubtilu sawm waaw maa yubtilu siyaam wa yujibu alqada walkafaara li nga xam ne day yàq njàpp te day waral nga fay jour boobu ba pare def kafaara kafaara suñ ko waxee Eh, dina leer ci xadis bi nga xam ne incha allah eh, mu ngi ñëw ci kanam mu ngi ñëw ci naka la ñuy kafara eh, bu ci njëkk mooy wala boog damay naan wa huwa aljimaau faqat wa huwa def li nga xam ne nii mooy aljimaa muy sëy ak sa soxna moom dong mooy wara li nga xam ne nii mooy kafaara loola am na xadis boo xam ne nii rot na ci xadis bi ci rot mooy jëlee nañ ci abi hurayra yal na ko yàlla gërëm mu ne jaa rajulun ila annabi sallallahu alayhi wa sallam fa qaala halaktu ya rasul allah benn waay dafa ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam يا رسول الله يا يونت يالا بي الكنا قال يونت صلى الله عليه وسلم وما اهلكك وما اهلكك لن مولا لن مولا من الك الك لن مولا الك قال وقعت على امراتي في رمضان لما سي اك سما سخنا كي وير كور قال yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daal di koy wax hal tajidu ma taatiqu raqaba ndax am nga loo gore lay jaam qaala laa waa ji ne ko déedéet qaala fa hal tastatiu an tasuuma shahrayni mutataabiayn ndax mën nga woor ñaari weer yoo xam ne nii dafay tegaloo waa ji ne ko qaala la waa ji ne déedéet qaala fa hal tajidu ma tutcimu sittiina ma تطعم ما تطعم ستين مسكينة أو ما تطعم ستين مسكينة قال لا من كون دخ أمغا لو خمنا عليك السلام دخ أمغا أه، لو خمنا دينكو منام ليلي جروم بن فك مسكين واجنا كديرين ثم قال ثم جلس توب واجد دادي توب فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق بعرق فيه تمر وبعرق فيه تمر آه، توب ينتبه صلى الله عليه وسلم يدارك اندل بين بني بوخمني تندر موتنك لولو مي على عرق dañuy wax ne mooy benn pañe boo xam ne nii lu tollook saa saa mooy eh, ñeenti mudd ñeenti mudd moom la wax saa bu ko defee ñeenti mudd yooyu lu tollook maanaam fukk ak juróomi saa fukk juróomi saa mooy li nga xam ne nii moo tolloo arq bi mu ne ñu daal di indil yonent bi sallallahu alayhi wasallam benn pañe ci li nga xam ne mooy tàndarma yonent bi sallallahu alayhi wasallam daal di wax waaji tasaddaq bi hada sarxel lii waaji daal wax daal di wax yonent bi ne ko ndax man am na waaye man ku ma gën a ku ma gën a ku ma gën a ñàkk mbaa am na hmm? man ak sama njaboot ndax ku ma gën a soxla lii am na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daal di fa daxika nabiyu sallallahu alayhi wa sallam ba dëgg jee feeñ mu wax ko izhab demal fa atimhu ahlak demal nga dundalee ko sa njaboot demal nga leelee ko sa njaboot kon loola di maanaam kafara <clears throat> mooy loola mu génne loola mu génne ba leelee ko li nga xam ne ni mooy njabootam loola mooy la nga xam ne mooy kafara bi kon kafara boo déggee ci biir xadis bi nit ki day goreel jaam su fekkee mënulu mënu ko mu daal di woor ñaari weer yoo xam ne dafa tegaloo bu fekkee mënu ko mu leel lu tolloog juróom benn fukki miskiin xadis boobu rawaahu ljamaa wa naam rawaahu ljamaa nee na ci riwaaya ibnu maaja riwaaya ibnu maaja soo ca demee da nga fay fekk riwaaya ibnu maaja da nga fay fekk riwaaya riwaaya eh, abi daawud da fay fekk wa sum yawman makaana waaw kon defal kafaara te nga woor te nga woor benn bis palaasu la xam ne nii mooy eh, eh, moom nga moom nga moom nga manqué woon kon ginnaaw boo defee kafaara ba pare da ngay wooraat bis boobu da ngay wooraat bis boobu mu dee eh, kafaara gi nga xam ne ni mooy woor gi nag bu boobaa nañu fàttali mën nañu bàyyi xel ne day tegaloo loola dañ koy tegale dañ koy tegale ñaari weer yoo xam ne dafay toftu la nga xam ne nii saa boo ci dogee benn bu boobaa daanaka da ngay tàmbaliwaat à zéro da kon ñu ñëw ci beneen bunt bi ñu koy wax mubtilatu sawm wala makruhaatu sawm kon génn nañu li nga xam ne mooy mubtilaatu sawm te ñu loo xam ne nii bu yàqee sa koor da fay ak loo xam ne nii bu yàqee sa koor dangay dangay da kafaara loo xam ne bu yàqee sa koor nekkoon ci ñeenti point loo xam ne nii bu maanaam yàqee sa koor du fa du waral fay rek waaye du maanaam du yem ci fay rek waaye da ngay fay ba pare nga kafaara aywa kon bu ko defee makruhaat yi yi nga xam ne nii dañ ko sib ci koor bi ci njëkk mooy al mubalagatu fi l madmada wal istinshaq maanaam bu fekkee nit ki dafay gàllaxndiku wala dafay saraxndiku mu daal di bañ a jotale saraxndiku bi wala eh, daal di bañ a jotale li nga xam ne mooy gàllaxndiku ba mu ëpp ba loola di waral maanaam ndox ma di rëcc li xadisin ci xadis boo xam ne ni laqit ibnu sabra mooy kii nga xam ne nii moo ko nettali mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ida tawaddata bu fekkee da ngay jàpp fa asbiril wudua na nga maanaam joteele li nga xam ne nii mooy njàpp li wa xallil bayna al te nga jotale maanaam te nga teqale barami baaraam yi maanaam diggante baaraam yi nga teqale ko wa balligil wa ballig wa baalig fi l istinshaqi illa an takuna saa'ima te nga jotale li nga xam ne nii mooy sarax ndiko bi ah te nga jotale li nga xam ne mooy sarax ndiko bi ludul kon foofu yonent sallallahu alayhi wasallam gis ne tere sarax boo xam ne nii dafa ëpp wala boog da koo digale ci lu dul koor da koo digale ci lu dul koor maanaam bu dee koor moom da def bu yem rek mais bu dul koor kooka may nañ la wala boog danga da war a sax eh, sarax ndiku bu àgg bu àgg loolu mooy digale yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam xadis boobu abu daawuda moo ko solo at tirmisi cheikhul albani daal di koy wéral ñaareelu yi ci nga xam ne nii day dañ ko sib ci koor mooy alwisaal fi sawm alwisaalu fi sawm mooy maanaam nga woor ba pare ba timis jot ba maanaam jant bi so nga daal di continuer kooko dañ koy tere eh, lan mooy dalilu loolu دليل لول موي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه دليل ننتي عبد الله بن عمر يلا كو يلا غرم من قال النبي صلى الله عليه وسلم قال واخنا موم عبد الله بن عمر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال ينتي صلى الله عليه وسلم ترينا ليغا خمنني موي مانام كونتيني وور مانام بو جنت سوي غا كونتيني قالوا مراد وقت قالوا bi mu teree saxaaba yi daal di ko wax innaka tuwaasil yow yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dañ yow ngay continuer mu wax inni lastu ka hayatikum man bokkuma ak seen jëm yi inni utaamu wa usqa man dañ may leel te dañ may maanaam nandal dañ may leel dañ may nandal boo demee ci yeneen riwaayaat yi day wax na suñu boroom mooy ki nga xam ne nii moom moo koy leyal waaye tamit moom moo koy maanaam nandal <coughs> kon ñetteelu tomb boobu te bokk ci yi nga xam ne nii dañ ko sib mooy zawqu taam bi xeyri xaaja maanaam di ñam li nga xam ne nii moom mooy ak sa làmmiñ ak ñam te fekk ne aajo woo ko aajo woo ko ko loola maanaam des koy tere te tamit maanaam lu ñu sib la te loolu al mazahib al arbaa ñoom ñëpp dëppoo nañ ci ni loola moom maanaam dañ koo sib ibnu abbas radiallahu anhu doon na wax laa ba'sa laa ba'sa laa ba'sa an yatataama al qidar aw shay maanaam bakkaar nekkul ci wala yàqul li nga xam ne ni moom mooy koor amul solo ci maanaam nit ki di togg mu ñam ak làmmiñam pour xam ndax saf na xorom walla saf na suukar walla lu deme noonu nee na loola dara nekku ci rawaahul buxaari buxaari yi moom moo solo li nga xam ne nii moom mooy xadis boobu kon daal ki nga xam ne nii maanaam day ñam eh, kooko may nañ ko mu la tag ci làmmiñam daal di koy génnewaat pour mën a xam lan la togg gi saf ñeenteel mi mooy alqubla wal mulaamasa wa ma shaabahahuma liman tataxarrak liman tataxarraka shahwat shahwatuhu mooy maanaam fóon fóon li nga xam ne nii sa soxna wala nga laal ko ci yaramam te fekk ne maanaam laal boobu wala foon googu def lay yóbbu ci daf lay yóbbu ci yëngal li nga xam ne ni mooy sa bànneex yow de manam danga nekk koo xam ne ni sa bànneex dafa gaaw a yëngatu trop ba nga xam ne ni boo laalee wala nga foon rek su boobaa sa bànneex dina yëngu loola kon dañ koy sip loola xam ngeen ni maanaam dañ koy dañ koy sib waaw ndax maanaam dañuy ragal mu yóbbu la ci lu xaraam wala mu yóbbu la ci loo xam ne ni day yàq sa njàpp day yàq sa koor xam ngeen ni waxoon nañ fële ca yi yàq koor ni génne mani yu boo xam ne ni da lal te loolu mën na nekk laal sa soxna génne mani yu ah, wala nga foon ko wala xeet yi demee noonu ala kul xaal ba mu yóbbal la génne mani yu kon bu fekkee nit ki moom dafa gaaw a yëg li nga xam ne nii mooy boppam loola kon dafay moytu maanaam yu demee noonu wala boog dañuy sib ci moom lu demee noonu ndax fa koy yóbbu moo tax da koy yóbbu ci mu euh, yàq li nga xam ne ni mooy kooram loolu it al madahibul fiqhiya al arbaa ñoom ñëpp dëppoo nañ ci loolay tegtal bi mooy abu hurayra radiallahu anhu moom moo wax ne am na benn waaye boo xam ne nii sa'ala annabiyu sallallahu alayhi wa sallam dafa laaj yonent bi sallallahu alayhi wa sallam anil mubashara anil mubashara lissaim ci maanaam jaxasoo ak sa soxna maanaam jaxasoo ak moom loo xam ne ni àggagul ci sëy waaye jaxasoo ak boom rek ci foon ak laal maanaam raay yu xeet yu deme noonu fa raxasa lahu fa ruxisa lahu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daal di koy may manam daal di koy teggil ab daal di koy may manam daal di koy jox autorisation daal di koy jox autorisation wa aataahu wa aataahu axar kaneen daal di ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fa sa'alahu mu daal di koy laaj moom fa nahaahu mu daal di koy tere gis nga Abu Hurayra nee na dafa am benn waay boo xam ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daal di sakku ci moom ngir ndax maanaam mën naa jonjoo ak li nga xam ne mooy soxnaam yonent bi sallallahu alayhi wa di koy may loola daal di koy may loola ne ko loola mën naa nekk beneen waaye daal di ñëw daal di sàkku loola la nga xam ne moom la ko jëkk ka sàkku woon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko déedéet loola mënut a nekk abu hurayra di nett fa ida alladi ruxisa lahu cheikhun ki nga xam ne ni yonent bi salaa sallam mayoon na ko autorisation pour mu daa di eh, mën a maanaam def loola nee na kooka kooka maanaam ab màggat la woon maanaam mag la woon daal walladi nahaahu ka nga xam ne nag maanaam tere terees na ko ah ka nga xam ne nii tere terees na ko nee na kooku shaabun waaw am ndaw la woon ab ndaw la woon waaw loola borom xam-xam bi daal di ci commentaire wane ni ki nga xam ne nii mooy ab ndaw moo gën a gaaw a yëg li nga xam ne mooy boppam ci koo xam ne nii maanaam ci mag la koo xam ne nii mag la kon loola tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam daal di autorisé kële kii mu daal di koy tere kooku rawahu abu daawuda abu daawuda moo ko solo albani daal di wax ne xadisun xasanun saxiix حديث حسن صحيح واو باتاي تي لين يو خمني علماء المعاصر آه، دي نكاي واخ تي مدعو العلك غير غير المصحوب بالسكر manam yeey li nga xamne ni mom moy singom yeey li nga xamne ni moy singom bo xamne ni yéey li nga xam ne mooy sungam boo xam ne saful sukar wala lépp loo xam ne daal da nga koy yéey rek te fekk amul maanaam ab cafka loola ba tey bu yenn borom xam ne dañ koy boole ci nga xam ne ni moom dañ ko sip loola di nekk kon juróomeelu tomb juróomeelu tomb kon dañ lay tere yow mi nga xam ne nga woor nga jël sa gémmiñ di ci def loo xam ne ni da koy da nga koy yéey euh, juróom benneel bi mooy jamu riiq libtilaahi maanaam nga dajale ay tuflit dajale li nga xam ne nii mooy ak ay tuflit pour mën wanaasu ko dajale ay tuflit yu bëree bari bari di ko wanaasu loola dañ koy tere yow kon nit ki dafay naturel rek ci ci ci koor maanaam li nga xam ne noonu la tuflit yi di ñëwee nga bañ koo maanaam dajale ah. xam nga daj dajale mu dajale tuflit moom naturelul bu ko defee maanaam bañ a dajale li nga xam ne ni mooy tuflit yi après nga doot ka di ko wan loola moom it dee dañ ko sib juróom-benneel bi mooy lépp loo xam ne ni dafay jëmale euh, euh, ki nga xam ne ni dafa woor ci mu am li nga xam ne mooy ad doof muy faible lépp loo xam ne daf koy yóbbu ci faiblesse maanaam mu faible loolu waay lu demee ni ki kal fast li nga xam ne moom la wax dañ koy gàjj gàjj gàjj lañ koy wax al gàjj wala xijaama ak li nga xam ne nii moom la wax nàmpatal ak li nga xam ne nii moom la wax nàmpatal waaw yooyu borom xam ne dañu gis ne day yóbbu nit ci ci maanaam ad-da'f maanaam daf koy daf koy daif loo daf koy faible loo daf koy faible loo daf koy faible loo moo tax xijaama sax moom benn masala la bu xëy na boo xam ne bu xaw a particulier particulier la parce que nii ñuy waxee ne maanaam dañ ko nii ñu ko dugalee ci yi nga xam ne nii ci tomb yi nga xam ne dañ ko sib am na boroom xam-xam yoo xam ne nii dañoo jàpp ne dañ koo dañ koo maanaam day dafa bokk ci yi nga xam ne day yàq day yàq li nga xam ne mooy koor moom xijaama muy nàmpatal ak fasl boobu muy gàjj kon xijaama maanaam borom xam bi dañ ci séddale ko ci ñaari xaaj xam nga ku mel ni kii wala boog ñetti madahib yi nga xam ne ni mooy ashafii ak eh, abu xanifa abu xanifata ak al imam malik eh, rahimahumullahu ajmain ñoom ñëpp dëppoo nañ wala boog seen ci seen madahib yi eh, dañoo wax ne xijaama moom dagan na ngir nit ki def ko ci koor ñu daal di abdullah ibnu abbas bi nga xam ne mu ngi wax ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ixtajama wa huwa wa huwa muhrim waaw yonent bi sallallahu alayhi wa eh, armaal na maanaam ci aj daa dem def li nga xam ne ni mooy nàmpatal waxtajama wa huwa saaim te tamit def na ak nàmpatal ba pare ñu koy wax ventus ci tubaab ba pare fekk na booba mu ngi mu ngi woor waaw jëlee nañ tamit ci ummu alqama mu ne kunna naxtajimu inda aïcha ah, mu ne ñun dañ daan dem di nàmpatal kër aïcha wa nahnu siyaam te fekk na booba ñun ñu ngi woor fa ñun ñu ngi woor ca jeexatul xadis mu ne fala tanhaahum waaw fala tun tan waaw maanaam tere wuñ ñu waaw ah, fala tanhaana فلا تنهاهم من تراوني كون تراوني تراوني وان لولو تراوني وان منام لولو غا خمنا دي موم لاني دون دف بو ديمي نك سي مذهب احمد نيوم نيو غيس ني حجاما ديف كو موم سي كور لولو داي ياخ داي ياخ كور نيوم نون لاني غيسه لان موتاخ ني واخ لولو ييت نيومي دانيو تكتلو بن حديث بو خن رافع ابن خديج موي كيغا خامني موكو ان النبي صلى الله عليه وسلم قال افطر الحاجم والمحجوم ا آه، كيغا خامني ني موي نامباتال اك كاكوي ديفال نامباتال كي فانتوس اك كاكوي فانتوسال نيوم نيب مانام ا آه، دوك نانيو نيوم نيب دوك نانيو واه واي نك آه، ابن عبد البر bi mu dajalee ñaari xadis yooyu dafa ne xadis bii nga xam ne ni mooy xadis bu mujj bi te nga xam ne day wane ni ki nga xam ne ni dafa ventus ak kooku defal ñoom ñëpp maanaam dog nañu loola xadis la boo xam ne ni dañ koo man suuxal moom ibnu abdul bar loolu la ci wax loolu la ci wax borom xam mi daal daal di daje wax ne li tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam wala li waral tere bii nga xam ne moom la yonent bi sallallahu alayhi wasallam tere dafa gis ne maanaam day faible loo maanaam nit ki bu fekkee dafa woor moo tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam doon ko tam xikma boobu moo tax mu tere ko waaye ñu nettali ne Abdullah ibnu Umar moom daan na ko def daan na woor ba pare di def xijaama waaye mujj gi mu bàyyi ko mujj gi mu bàyyi ba dok doog a def li nga xam ne mooy xijaama ngir lan ngir ne dafa seetlu ni bu daan def xijaama dafa daan manam faible maanaam daf ko daan faible loo daf ko daan faible loo moo tax mu mujj koo bàyyi kon daal ala kulli xaal eh, ci li nga xam ne ni moo gën a lëng ci wax yi te ñi ëpp ci borom xam-xam wax ko mooy xijaama moom du dokkoor waaye dañ ko boole ci nga xam ne ni eh, moom la ñuy wax makruh maanaam dañ ko sib eh, juróom-ñaareel bi te loolu maanaam ñi nga xam ne ñooy maaliki yi ñoo ko wax matam malik ñoom ñoo jëm ci ne bokk na ci ca iksaaru nawm bi nahaar bëri looy nelaw maanaam nelaw nelaw bëccëg bi yëpp nga bëgg di ko nelaw kooko it dañ koo sib ah bëccëg bi yëpp nga tëdd ko di ko nelaw loola maanaam dañ ko sib xam naa ni yooyu xeet la rek ci sawarloo nit ki ndax bëccëg bu fekkee ni lépp tamit da ko tëdd di ko nelaw boo moytul jaamu yàlla yu rëy yu mag mag mu ngi lay raw ah, ci jàngal quran ci askari yi ala ci déglu yi nga xam ne ni mooy wax yu baax yi nga xam ne wala ay waaraate maanaam lépp loo xam ne ni def lay jëriñ jàng alquran jàngale alquran yeeg tafsir yeeg xeet yu deme noonu mu ngi lay raw moo tax pour ñu sawarloo doomu aadama ñu ne ko ah kon dañ ko sib waaw ndax yiw yooyu nga xam ne nii moom lay raw kon ñi nga xamne ñoy maliki ñom yi dañoo jëm ci bor bobu waye tamit boole nañ ci it fudul qawl wal amal manam di wax ay wax yo xamne wax yo xamne wax la yo xamne amul ben sens wax yo xamne sax manam tegginuul ak wax yo xamne ni amul ben njariñ yu mel nonu ak diko jëfe it muy jëfe li nga xamne mom lañ wax jeu les jeux d'hasard nga xam ne ni ay jeux la yoo xam ne xeetu lu mel ni lido mi nga xam ne ni bu weeru koor bi jotee bokk na ci yi nga xam ne nii day gën a jar ndax nit ñi dañuy koy dawali dem jënd ko ngir maanaam passé ci seen temps passé seen temps wala toog ci benn jotaay euh, di jëw di di di di yàq deru jàmbur yi ak di wax loo xam ne ni amul la benn njëriñ indil la benn tiyaaba yooya moom dañ koy wala boog dañ ko dugal mazhabu Malik dañ ko dugal ci li nga xam ne nii dañ ko sib ci li nga xam ne mooy weer koor kon daal mbokk yi loolu mooy lii mooy li nga xam ne nii moom lañ leen waajaloon pour eh, indil leen ko ci mawdu bi nga xam ne nii moo doon mubtilaatu sawm wa makruhaatu mubtilaatu sawm wa makruhaatu Euh, kon bu ko defee euh, ñu ngi leen di jéggalu bu baax a baax ci euh, njuumte yi nga xam ne nii nekk na ci di jël lépp di ko delloo borom bi subhanahu taala lu ci jub ci yàlla la lu ci dëng ci ñun la ñu ngi leen koy jéggalu aqulu ma tasmaun yaghfiru llahu lana wa lakum a'lam wa raddul ilmi aslam wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu. salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. mbokk yi ñu ngi leen di nuyu baax di leen ñaanal yàlla subhaanahu wa taala tawfiq eh, di ko ñaan mu saxal ñu ci njub gi mu gërëm ba kerek ñu koy wuy ji di sant di ñaanal mbokk mi nga xam ne moo ñu doon defal mutilaatu sawm eh, mu nekk waxtaan bu am solo di ñaan borom bi tabaraka wa taala mu defal ko tawfiq te defal ñu ko Euh, mbokk mi ma doon euh, sàkku li nga xamante ne si ni moom mooy euh, ay laay biir yoo xam ni di ko dénk ñi nga xamante ne si ni bu weeru koor jotee dañuy nekk di def ay théâtre di def ay comédien di def ay reetaanloo ci ni ma ko mën a waxee ci gàttal te yépp di ci gën a doy waar day jëm ci wàllu diine maanaam nga gis koo xam ne day wóor ba ca digg ba mu mel ne ku dugg ci restaurant di lekk wala nga gis koo xam day julli dem ba ci biir mu dagg julli ga wala nga gis koo xamante ne si day naafila dem ba ca biir mu def yeneen yoo xam ne ay reetaanlu la ba ñi toog di ko seetaan amuñu ci benn yëg-yëg ci wàllu ragal ci di seen digganteeg seen boroom waaye yëg-yëgu bànneex lañ cay am waaw ñooñu lan nga leen di laay biir بارك الله فيكم لي لا موي سما كيسيون السلام عليكم ورحمه الله وبركاته كيسيون با مسلا بوب ا إيه، ماي واخ نك موي لاج گم نا ني مو گنا خم كيغا خم ني موم لاي لاج واي جاب نا ني يعني خينا داكوي لاج رك ان شاء الله بور إيه، باي لو خل نيت ني موي كيسيون بو ام سولا نك واخ مو ملني تود ناكو تي بير وقتان بي داخ بي ماي تود ليغا خم ناني مالك واخ يو خم ناني مانام تكول دره manam amul ben jariñ ba pare euh amul jariñ dal wax yo xamné amul jariñ wala ëppal ci bëril wax wala bëril jëf yo xamné ni amul ben jariñ ma joxon joxe won ci ay exemple kon da ngay gis ne wor ba ngon jot defo lu manam maanaam jàkkaarloo ak ben télévision bo xamné ni manam maanaam daf lay won yo xamné amul benn rapport ak li nga xam ne nii moom mooy jaamu yàlla bal contraire bi sax la lay wan ndax daf lay wan loo xam ne nii day saboote li nga xam ne shaaru shaairul islam te maa ngi ciy ñëwaat loola day dugg ci fudulul amal maanaam jëf joo xam ne nii du la rapporter lu bari bal sax mën na la indil bàkkaar ndax fekk nga foo xam ne dañu fay E, sabote li nga xam ne mooy aaye yàlla yi te yow mettlu woo ko waaye da nga toog te borom bi subhanataala jàngaloon nañu bu ñu fekkee foo xam ne nii dañ fay sabote aaye yàlla yi ak di ko ŋàññe di ko maanaam yëjji nañu dem nañu jóge ci place boobu boo fa toogee yow ak ñooñu yéen a yam loolu la borom bi subhaa waxoon kon yaa télé bi nga xam ne moom nga jàkkaar lool ñuy dajji shaairul isla shaairul islaam yow nga waroon cee am naqar di sape télé bi dem seetaani yeneen programme xëy na yoo xam ne ni dina amal njariñ defoo loolu waaye nga am ci mbégte su boobaa jàppal ni yow di nga seddu ci bakar boobu nga xam ne nii moom mooy maanaam télé boobu beneen biit mooy heure boobu dafa nekk heure ñaan heure yooyu ñu koy def yenn saa yi ndax dañuy bàyyi ba heure ndogu heure bi nga xam ne nii eh, jàngale woon nañ ci ni ku ñaan heure boobu day nangu muy heure ndogu ñu attirer sa attention di la wan ay caaxaan nga nekk ci caaxaan yooyu ba doo tal li nga xam ne mooy ñaan bi nga xam ne ni moom nga waroon ñaan te ñaan boobu amaana mënoon naa nekk li nga xam ne mooy sa texe àdduna waaye sa texe àllaxira nga xañ ko sa bopp ndax ay caaxaan loola nit ki war na koo moytu amma ñi nga xam ne nii ñooy def théâtre yooyu ñooña it liñ leen di wax mooy ñu ngi maanaam gasal seen bopp bàmmeel loolu moom laa leen di wax ndax lan ndax sha'airul islam yooyu nga xam ne nii moom la ñuy jëm at di ko saboote loola génne na leen ci islaam bu yàgg ndax nit ki nga xam ne nii day jam maanaam borom bi di yejji borom bi walla muy yejji yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wala muy yejji lenn ci arkaan imaan arkaan islaam nga xam ne lu demee ni ki julli wala woor loola borom xam-xam yi dañoo ne day génne nekk ci islaam ñuy tegtaloo aaya bi nga xam ne moo ca suuratu tawba aaya 65 66 برب سبحانه وتعالى دي وخ بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم kon aaya boobu borom subhaanahu wa day wax boo leen laajoon dañ lay wax ñun dañuy fo rek dañuy dañuy kaf rek waaw ñun daal dañuy kaf rek yàlla mu mel ne da leen di poser question mu ne leen abillahi ndax yàlla wa ayaatihi ak ay aayaam wa rusulihi ak yonentam kuntum tastahziun ndax moom ngeen di fooye ndax moom ngeen di yejji di ko ree laa taataziru yéen kay amoo leen fii maanaam ñaan ak ngant qad kafartum weddi ngeen baada imaanakum ginnaaw bi nga xamee ni gëmoon ngeen kon lii julli bu nekk war na ko ŋàbb lii dafa rotoon ci eh, ay nit yoo xam ne nii dañ doon maanaam bi nga xamee ne ñu ngi dem azwatu Tabuk ñu ànd ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñoom ñuy saboote jullit ñi léegi biñ leen booleeg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci la yonent bi sallallahu alayhi wa jàngal leen aaya yi nga xam ne jóge na ca boroom bi subhaana wa kon lii lu jara moytu la képp ku mel ku tàbbi ci lu mel nii looloo daf lay dal moo tax wallahi bari nañu ñoo xam ne ñu ngi fii waaye war nañoo tuub bari na ñoo xam ne ñu ngi fii di mbubboo di tuddoo ay jullit waaw boo waxee ñu ne jullit lañu te fekk ne seen ngëm màbb na bu yàgg-yàgg seen ngëm màbb na bu yàgg-yàgg-yàgg ko kon nag war nañoo moytuwaat war nañoo tuubaat dellu ci borom subhanahu wa ci yenn yi nga xam ne moom la def nekk di saboote islaam ak di def maanaam ay ñàq fayda yoo xam ne ni tekkiwul dara tekkiwul dara lu dul bëgg reeloo nit ñi rek ndax poñetu àdduna kon ki nga xam ne ni mooy def loola war naa tuubaat waaye ki koy seetaan tamit war naa góorgóorluwaat tuubaat delluwaat ci yàlla xam ni kooram gi bokkut ak maanaam ay caaxaan war na koo soril li nga xam ne ni ay caxaan te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dañuy dafa wax ne e, mbir yi ca mujjantal ga waaw ci mbir yi mooy ca mujjantal ga boo xaaree nag ba ca mujjantal nga àgg ba ca fin ba nga xam ne ni desul lu dul ndogu nga xam ne foofa loo fa ñaan mu nangu ngay toog di caaxaan ak di jàkkaarloog caaxaan loola kat e, ab jullit daf ko war a moytu waaw wa ida marru billaghwi مروا كرام على برم سبحانه وتعالى أخوان والله أعلم